waaw jàng mi d'ailleurs nit ki ngay jàppale mooy nit kiy jàng nit ki nga xam ne yow jàngoo pour commencer moom amul bac te ñun bourse yi nga xamante ne ni moom la ñu ISEC daan may ISEC dani il faut que nga am bac te moment boobu mu fekk aussi ISEC am ay problème parce que Job ISEC ku ne déggoon na fi ay problème am donc ñun suñu ngor mayuñu woon di dem ba ci moom di insister pour affaire bourse alors que mi ngi yore ay problème ci loolu laa walbatikoo laaj sama benn xarit euh, le DG de comme mi ngi may dégg ma ni ko comme Diop dafa toll si ay situation diggante est-ce que doo ñu mën a may bourse mu ne ma amul benn problème mais dinaa ko def ngir yow mais il faut ma am les not notes yaa ngi nii duma ko wane parce que duma ko publier mais notes yi dafa catastrophe parce que jàngul léegi nag ku mel noonu kon yow jàngoo say notes catastrophe ba da nga redoubler moyen yi bu ñu la ko wanee ah, loolu kenn mënu ko mënu ko yóbbu fenn donc est le problème de bi alors c'est la vérité voilà merci